taalibu daabu buñ gisee mu bind kayit wax ñi yenn wax ji ci taalibu daabu te lépp ñu jàpp ni ay ay ay manipulation moo ko lal jàpp ni ay ay wuruj ñoo ko lal te bañ a toog waxtaan ak les concernés pour trouver problème surtout bu ñu xamee ni problème bi jiitu na sax moom ñëwam bi au niveau du secteur de la santé loolu waxtaanee nañ ko ci ci ci ci rencontre bi wax nañ ñu aussi dara beesu fi ndax lépp li nga xamante ni wax nañ ko teg nañ ko fekk na mu doon protocole bu ñu signé woon ak gouvernement bi dem dañu wax ni état continuité la donc ministre de la santé bi fi jógee signé woon nañ protocole boo xamante waroon nañ ko doxal ci wàllu plan de carrière wu yi nga xamante ñu ngi nekk ci secteur bi surtout infirmiers d'État yi sages-femmes yi ak techniciens supérieurs de la santé ci ko loolu ñu constaté que ni gis nga secteur collectivité territoriale sunu camarades yi nga xamante ni ñoo nga fa depuis ñaari at ñu ngi ci grève boo xamante ni ci seen dëgg lañ ko teg ndax accord moo leen jox li nga xamante ni moom la ñuy laaj ginnaaw bi ñu négocier ak gouvernement bi lañ trouvé accord ni ñii war nañu am lii ñuy laaj te loolu ñoom ñi ko seq yor nañ solution bi nga xamante ni bu ñu toogoon waxtaan ak autorités yi dinañ gis solution